Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi wa nuyu di leen siaran. te amoon benn vidéo bu gàtt rek bu may def vidéo bi tamit dafa jëm ci eh, suma xarit muy Serigne MC lu ci jëm ci loolu tamit mooy mbirum audio yi nga xamante ne euh, yéeneen koy dégg fan yëpp mu nekk ci internet bi euh, bi euh, ma gis tamit ay nit yu génn wax ci may fàttali na rek jataay bi ma toog na tontu kenn taxul ma toog fi Nah, manam tontu ma serigne lay wala may tontu gogan wala ma tontu ahmed khalifa nas wala ma tontu fura maki wala ma tontu sax fatoumata ndiaye fouta tabbi parce que ñoom ñëpp gis naa ko nekk def ko sorti wax ci mbir bi loolu moom jàpp naa ne sëriñ bi su ci wax ci jotee moom dana ci waxal bopp waaye tax ma rek ñi wax ni ñu ak bi am ci taxawaay yi mu ci taxaw mu leer leeral yàlla ku ma joxoon kaamil ma euh, fi ñu jëmee wax ji du fa ma bëgg ñu jot a wax bu dee dafa am lu leen leerul ci li mu dégg ma leeralaat leen ko ñu jotut wax maanaam lu jot a jàll te ma dégg ko ci ay nit ñu di ko wax loolu mooy buntu wax ci ndax na mu demee waxee wuñ ko. te lu ëpp ci ñuy wax rek dañ ne Serigne Mbaye dafa yàq suñu der di yàq der di def nangam wala di santas ñaar yëpp mu ci mu yàq der baatub santas jàpp naa ne nag ku yàq der moom du dem jël ab audio maanaam enregistrement appel yor ko lu tolloo at décembre la sëriñ bi enregistré aji saar ba décembre ba dellu siwaat mu doon koy jox doyen de six atum yalla nak bu ko meuna yor lu yak ay der ta bang koy def amon ci yéene yak der nga téye ko ak du ko ben sénégalais mu sut ne dëgg naa ko wala seigne mbay jox na mako won def na ma ci dara kon kooku japp na ne ku yàq der bokkoo ak kooku aw ni bu batu da fay santas su santaas won su ñewé ma jox ko nangam japp na ne timit bu dee baatu santaas sëriñ mbay bi mu yoré audio yi amul ben responsable mu jégué Macky Sall ak bu ko sori mu mën a taxaw wax ne Serigne Mbaye laaj na ma na wala wan na ma ko wala sàkk nañu ñu daje wala dara euh, li wax te ñëpp dégg ko mooy aji saar wax naa man wax na ma ne lii mu nekkee ay tapale la loolu nag bi ko ko aji waxee lenn rek la Serigne bi doon sàkk mooy nañu na ma siis bi woo ma leeral na ma siis bi woo ma leeral loolu la yàgg a wax. man mii nga xam ne da doon waxtaan ak man dama ko doon dama ko doon ji féete ci xelal ko ci mbir mi dëgg feeñ ci lenn laa mës a wax mooy na ko siis bi woo na ko siis bi woo jàpp naa ne nag ku yor ay audio di santaas Macky Sall doo dem ji siis di ko ko jox parce que justice moom xanaa koy santaas di ko tekki su fekkee nag ku mooy siis bi na keneen génn wala lenn luy firndeel na Serigne Mbaye da doon santaas wala da doon laaj xaalis kon loolu leeral na ne ñi ne daf doon yàq ku yàq der doo dem di jënd dara ñu ko jox si denc ko at génne ko ku yàq der wala ku bëgg santas doo dem ba ci doyen de siis ma xam jàng nga di ko jox ay audio te it mbirum santas moomu tamit Serigne Mbaye bu fekkoon ne dafa bëgg santas waa APR wala kilifa yu réew mi jàpp naa ne tey la koy tàmbali tey di nga xamee ne am na audio yu jot a génn ba mu leer leen ne wax joxoon na diggante Serigne Mbaye ak Adji Sarr waaye Serigne Mbaye de audio yii. ak jaar-jaaram ak Adji Sarr. Adji Sarr bi mu duggee ci ay loxoom ba waxtaan dox digganteem ak Adji Sarr ba ni mu doxalee ba àgg ci juge bi lépp boo ko xoolee da ngay xam ne Serigne Mbaye mii day nit ku responsable la ku ñeme dëggante ku bëgg dëgg parce que Adji Sarr dafa jaar ci Baye Mbaye bi mu fa ñëwee li mu séq ak Baye Mbaye lu bari la loo xam ne asaka ji Sénégalais yi xamaguñu ko aji xam na Baye Mbaye xam na mais asaka ji même bu wër Adji Sarr xamuñu ko. bi bàyyi bay demee ba gis na lii kat bunte gi ci bu mu mën a feeñale dëgg indi jàmm ci réew mi dafa enregistré Adji Sarr bi mu ko enregistré dafa wëlbatiku xamal Adji Sarr ne ko kat lii nga ma leeral de enregistré naa ko Adji ñaan ko ndimbal mu ne ko damay da ngay ñëw nga wax sénégalais yi dëkk ma yóbbu la ci Ousmane Sonko nga baalu ko ak nga baalu ak ñëpp delluwaat ci sa fii coow li jeex. Adji lànk ne loolu du ko def bàyyi mbay booba ak léegi ma justice booba ma leeral la ma sa wax. jàpp naa ne que ba mu demee ci siis ba génn benn déclaration la def mooy wax ne la ma yoroon jox naa ko justice bi yal na yàlla feeñal dëgg demaat këram toog booba ak léegi déggu leen ko wax ci dara kon képp ko koy song yaa ngi doon jàpp naa ne nag li ma wax léegi mooy bàyyi mbay bu doon santaas tey la koy tàmbali mooy li dox diggante bàyyi mbay ak aji laa bëgg a tuuti rek ci li ma ci mën a leeral mooy aji Sarr moom bàyyi mbay bi mu ci enregistré nit ñi fekk. loolu moom mooy li wér moom enregistré nit ñi moom ci la ko bàyyi may fekk yàlla dafa dogale bi mu ne nii bàyyi may dugg ci dossier bi kon bàyyi may moo di sëriñam di sëriñu kilifaam di kilifaam dafa jàppoon ne fi moom dencukaay la boo xam ne lépp lu ko naqaree fi la ko war a sotti ak lépp lu muy natt fii may wax ak yow bàyyi may yor na daanaka xawumaa xam ñaata audio la wala ñaata kilifa maanaam jàpp naa ne képp ku mos a téléphoné Adji Sarr ci bi coow li tàmbalee ak tey jii wala boobu bi mu yoree iPhone 12 am boobu ak tey jii bépp nit bu ko mos a moo xam journaliste nga moo xam kilifa nga moo xam député moo xam ministre nga moo xam ab géwal nga comme mën a doon ci li ma jàpp mooy aji Sarr moom enregistré na la wala ñu ci rëcc bëri enregistrement yooyu yëpp daf ko dajale jox ko bàyyi ngay MC pour mu téye am na sax ay nit ñoo xam ne dañoo toog ak ay fexe ne ba photo leen jël photo yi transféré bay mbay am na sax ñoo xam ne ay vidéo yi trente minutes nga xam ne kii diwa toog nii mu koy firme dugal loolu nag moom moo xam ni mu ci jub parce que ci biir ko audio yii nga xam ne sax jox nañ ko juge bi aji mi ñu wax ne même journal yi bind ci man sax journal bu mos a bind ci man wut naa ko denc ci li ma yaakaar nag loolu nekkul ci biir waxtaan yi waaye ci li ma yaakaar mooy aji moom bu demee ba Amérique parce que yàgg naa wax ne su ma génnee su ma waxee li ma xam ñoom ñëpp ci kaso bi lañ jëm man damaa gëm ne dafa amoon yéene fexe ba génn fii mbooleem ñu ma a waxal ak document yi mu am yëpp mu xëpp ko ci internet bi pour réew mi jaxasoo man loolu laa jàpp. waaye li wóor te wér daal mooy bu fekkonte ne sëñ Mbaye moom santaase ko tax a jóg mi ngi lu mën a su fekkonte ne yàq der moo ko tax a jóg xam naa ne bari na ñu ay ojo photo ak vidéo lu mu seqe ak aji lu bari loo xamante ne su ko génnee woon tey jii réew mi dana bari mag mu fi suturaan xawi ko dana bari mu fi bari bari bari ñoo xamante ne danañ am lu leen naqari lool. soo xoolee aji kenn la mënta woon a enregistré muy Mamour Diallo parce que Mamour daawu ko woo téléphone te bi Mamour ñëwee ba toog ak moom fexe na ba enregistré Mamour ci ay technique yu boppam fexe na ba enregistré Mamour jël jox jël jox juge bi jël jox bàyyi may mu téye ko boo xoolee sax Gabriel Kane mi Adji Sarr daan nekkal ak ku ñuy wax Fifi Yane Wade defe naa la ak keneen ku jigéen lu baree bari day toog ak ñoom bés enregistrement enregistré nañ ko pare sànni bàyyi may def na ko ay miraaram am boo xamante ne mi ngi naan Fifi Yane ki tudd Fifi Yane ñëw na ne ko ma defaral la nga omelette bi nekk nañ ñu nekk de ma defaral la omelette mënu ko non non non xaaral ma pare su ma pare damay defar omelette maa ngi defaral sama bopp omelette ñu toog noonu di defar omelette di lakk di waxtaan waxtaanu jigéen amul lu ci garaaw sax mais dama leen di xamal rek ne loolu rek moom daf daaw ko bàyyi mu jàng daf ko daan kon nag donc bu kenn tuddee bàyyi mbay yàqkatu der ndax jàpp naa ne kuy yàq ab der boo amee lii lenn ngay profité mooy tey ma rey nit ñi yàq seen der wala boo amee lii di nga ne kilifa sangam de aji wax naa aji téléphone gis nangam heure nangam nangam lañ doon wax mu ngi nii kilifa boobu bu ci jotoon nga santaas ko mu jox la xaalis mais ñooñu ma leen di wax amu ci kenn ko mën a taxaw ne bàyyi mbay mas na maa dégg ci àdduna wala mas na gis wala mas naa yónnee ndaw ci ma kon il faut ñu naan bàyyi mbay yàqatu der kuy yàq der du yor audio pendant un an génne ñu arrêté bàyyi mbay dafay santaas kuy santaas numéro seeni numéro ngi noonu mosoo gis kenn kuñ ci woo téléphone wala kuñ ci seet si wala kuñ ci mës a sàkku pour gis la kenn kim doon sàkku kenn ñi pour gis ko kooku kenn du ko santaas mooy le doyen des six foofu dëgg lañ fay wuti bàyyi mbay ba mu demee dëgg la fa joxe toog di déglu man gis naa ne mbooleen ñi ci wax ñëpp nanguwuñoo agsi ci kilimu tooñ muy aji saar ñi ñu enregistré moo leen enregistré ñi ñu tudd moo leen tudd kuy wax nag man su ma sañoon ngeen wax ak aji saar wala boo boo waxee Baye Mbaye sax nga waxal Adji Sarr bopp mais ñëpp rek ci aw Adji ak kaw Baye Mbaye nañu bëgg a jël sippi ko mbir mi nee na Baye Mbaye moom moo leen tudd kenn wala bu fekkee Baye Mbaye leen def garaaw na tamit aji mi leen cité moom tudd ne moom itam def na dara kon jàpp naa ne kuy pelante nga pelante aji bu fekkee daf laa tooñ kuy tontu nga tontu yi bu fekkee daf laa tooñ wala boo mënta ñàkk a wax ci Baye Mbaye nga wax ci moom li mu def te bañ koo sosal naan ko da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa nit ñi wala dangaa yàq der wala da nga doon santaas nga waxal ko li mu def mooy moo enregistré Adji Sarr loolu yoon maye na ko boo demee ca code procédure pénale art article quarante neuf dafa may bàyyi bay MC droit mu def nii mu def te bu ko weddi nga dem yër téere boobu da ko fa fekk yoonu Sénégal moo ubbil bàyyi bay su amee lu mën a leeral enquête bii ma xam jàll nekke mu jël ci ay ay preuve de nit ko loolu yoon moo ko ko may kon jàpp naa ne bu amee kenn ko ko mën a condamné yoonu Sénégal la ci mer nag nga wax ak Adji Sarr mi nga xam ne moo la cité tudd la te ngir yàlla ak yonent bi Serigne Mbaye lim ci def amul fenn fu ko nit mën wax ne fii nga ma tooñi amul fenn fu ko yoon mën a wax ne fii nga ma tooñi lii ma def nag defuma ko ci turu Baye Mbaye parce que man une semaine a ngi sax parce que yaakaar naa ma nga seen gàmm yooyu ca àllu Saloum yaakaar na xaw ma kër ma jadem la nekk xaw ma waaye man maa yëg ne ànd gi may ànd ak moom lépp ma xam ko su ma gisee ay di am taxaw di ko di ko di ko ak accuser loo xam ne nekkul ci moom dinaa jël sama responsabilité doonte ñi ciy wax ñëpp kenn ku ci nekk bàyyi mbay am na droit tontu la boppam waaye man tamit dinaa wax li ma xam ak li ma fekkee ndax wa maa naa illaa bi naa alim naa seede dëgg rek moo tax ma toog fii wax ñoo ngi leen di siyaare tey baalu àq ñëpp